bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa di gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant ñëpp ñi ñuy seetaan di sant àdduna kàddu yi nag rafet na Malick li nga wax rafet na Cheikh li nga wax rafet na Euh, sama kàddu nag du ci mu a gum sore ndax dañu jàkkaarloog suñu mbokk taskatu xibaar yi yi nga xamante ne tey am na lu am na loo xamante ne bëgg nañ ko xam te loolu moo ñu fi tax a teew tey donc dañ leen déglu rek après. waaw le mot introductif rek quoi ci doon baax. waaw introductif rek mooy la jeunesse de l' ba ba ñuy. waaw la jeunesse de l' événement je pense que ce sera très facile à faire. Mm-hmm. Euh, am na loo xamante su ma defee jeunesse sax dina tax ba lu ma bëgg a wax journaliste yi. buñ ma posé question duma ko mën a wax. moo tax bëgguma dugg ci jeunesse boobu. je préfère bàyyi leen ñoom ñu laaj ma lépp lu ñu ma bëgg a laaj ma tontu leen ci tey incha allah lépp nag laa wax. comme ni nga ko waxee sànq jaar na fi lu nekk gis nañ ko ci fi mu mujjee itam gis nañ ko ci mais dama bëgg rek leeral benn mbir mu ndaw dalalaat xel yépp ne leen man sëñ Fallou Luc Nicolaï maa ñëwaat man. ci làmb ji maa jël làmb ji en main le 13 mars làmb ji dina am face à incha allah wa rabbi bu neexee suñu borom face à face yi ñuy wax dinañu am te dinañu am ni ñu ko bëggee benn coow du ci am benn violence du ci am muy Modou Lo toog di Ama balde ba may tëgg làmb ñoom ñaar ñëpp kenn takku ci ngemb kon ñoom jaaxaluñ ma donc tey dama bëgg leeral askan moo tax ma ñëwal suma bopp gis naa nag ci réseaux sociaux yi ak feneen ak feneen ak ci presse bi ak ci télé yi ñuy wax waaw Luc respecté tout amateur yi du ñëw du ñëw ci face à face du ñëw moo tax ma ñëw tey pour leeral askan man maa ñëw modestie à part nag interroger leen histoire làmb yu mag yépp yi fi am ngeen interroger histoire ne kan moo ko tëgg ngeen laajte ba xam lépp làmb yu mag yi fi ne laa lay wax kooku suñu borom moo ko dogal du ci man ku yaakaar na ci man la yaa ngi juum yàlla moo ko jaarale suma loxo di wax ne nag bare na tey coow li bare na nii mu am ay ñuy tëgg làmb di wax mais ñu ci bare samay face à kii mu ngi nii toog caan Malick mu fekkee ne lu bare samay face à sax dañ ma doon ñaan pour ñëw seetaan ko di ma ñaan di ma laaj nan la ñuy defee événement dama bëgg ñu dalalaat xel yi wàcc tension bi fii làmb rek la mënul paase làmb te li ma leen wax ñëw naa face à face dina am maa koy diriger du keneen nag maa koy diriger te dina am te du yàgg dara dinañu toog moom dina toog Ama dina toog dinañu wax te dinañu bëre làmb ji barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul xam nga il faut ñu arrêté tuuti polémique yu ndaw yooyu su ma neexee man biir kër Modou Lo sax ma def fa face à face su ma neexee ma def ko biir kër Ama Baldé xaalis laa leen fay ay centaine de million du ay fo contrat laa seex ak ñoom dañ koy respecté dañ koy respecté ci nii wala ñu respecté ko ci nele walla boog la nga xamante ne loolu laa waxante ak ñoom bu jot xaalis ba jotee duñ ko jot face à face moom li ma wax dafa leer dina am du yàgg dara Modou dina toog Ama dina toog journaliste yi toog ñu wax ak askan bi jëm ci làmb ji ci jàmm ak salaam bëri ko ci jàmm ak salaam ndam li képp koo xamante ne suñu borom yow la ko jagleel nga jël ko ci jàmm ak salaam te benn coow du ci am incha allah. waaw Malick man de su ma gis-gis rek laay wax mënuma nag nekk ci xelu keneen mais man li ma jàpp mooy combat bi mënuñu ko bëre arène nationale parce que keroog gis ñu billet yi je cinq mille francs dañ ko jaayee billet amateur te gis nga amateur yi kaas. te bu ñuy kaas aussi peut-être ci benn côté wax nañ dëgg parce que publicu làmb xëy na euh, doole yi yemuñu bien que damay gis ay euh, artistes yu jógee étranger ñu mel ni ay daju ay ñeneen ak ñeneen bu ñu ne billet dix mille francs billet vingt cinq mille VIP cent mille kenn du wax dara alors que li ñuy fay mbër yi sax fayuñu ko ñooñu donc tey je pense que bu dee làmb nit néegu ci joxe cinq mille francs ci mbër yooyu fay ay cent cinquante cent soixante millions je pense que war nañu xoolaat mbir mi il nit ñi xam aussi dañu bëgg mais arène national li wóor ba wóor mooy man xam naa ne combat bu xaju fa mbër mii toog xam na ne xaju fa ndax Modou mii leer na ko ne supporter am kase kase feesal nañu arène national moom mii wóor na ko ci combat bi bu caaxaan passé dëgg des ama moom itam ay supporter am feesal nañu arène nationale léegi nag ñun moom amuñu décision bu ñu ciy jël

ñu bëre fa combat bi pour mu doon fête ci ñëpp ñoo xamante ne xëy na du ñu mun na dem stade ñëpp doon fête ci ñoom affaire bi doon vraiment loo xamante ne ku ne dina ci gis sa bopp. voilà loolu daal lañuy ñuy ñaan incha allah.